ndomba bi mën naa la kaa wax. ndomba gi lan la. xam nga ndomba gi lan la. lu mu jàpp Khalifa Sall ak jàppu Karim Wade. Mhm. jàpp Omar Boronde Diop. Mhm. Ah, naka euh, jàmm Madou. ñooñu li ñu leen doon def. loolu la sénégalais yi nag retour saa boo ko laalee ñu ne ni ñu bëggoon def diw lañ ko bëgg a def. d' accord d' accord. jërëjëf mooy ndomba gi mu tàkk. jërëjëf Jimbori moo tax pour nga dem ba laal ko wala nga def ko dara day xaw a gis nga réew mi fu mu toll nii. waaw. Euh, nga daane euh, foofu waaw ma wax la benn affaire. waaw xoola Ousmane Sonko. jàppe ko keroog Abraha ba muy toj Kaaba ga xoola Abraha dafa tabax Kaaba am ko Kaaba gi dafa gis Kaaba Màkka gi ni mel noonu mu xeeb Kaaba gi xam nga fii dañoo gis dafa am ñu gis Ousmane Sonko xeeb ko xeeb buggaan ndax mbubb yu rëy ak ak ak daraja bi ñu am. yaa ngi dégg am ñu fa jaar ci kaaba gi mu tabax kaaba gu rafet daal ni wax leen waa Màkka ñu bàyyi kaaba googu te ñëw si sama kaaba dafa ne kaaba gi rafetaay la am ku jaar ca kaaba ga puub fa puub ca kaaba mhm. moom mu ne ah dafa am ñu jóge Màkka ñëw di ma ñaawal nee nañ pour puub sama kaaba damay dem nag toji kaaba ga ba mu demee kan moo dox digganteem ak kaaba gi kenn kenn dem na ba bu dawalee ñay bi jëm ci kaaba gi yaa ngi dégg ñay bi day di përñiku pour ñibbi yéen saa boo leen dawalee seen ñay yi jom kër jom si Ousmane Sonko ñay yépp ay wëlbatiku yéen yéen ay wàcc di forcer. d'accord d'accord. xoola waaw tey jii kanu yi sax kanu yi nekk ci Sénégal ak fetal yeeg yépp boo ko tiimale woon tiire du dem mais nit nag yàlla daa may nit. si boppam lépp lu mu paree def mu def ko ba yomal xiyaam mu lijjanti ko moo tax ay nit ñoo wàcc taxaw ci kanamu Sonko mais ay nga ay ngànnaay tiimu ko ngànnaay boo ko fa tegoon dañuy bañ. d'accord jërëjëf Jimbo boo leen bëggee réew mi ak ñaan yi fi Alaaji Maalik ñaan ñaan yi fi Serigne Touba ñaan ñaan yi fi Limaamu Laay ñaan mag ñu baax ñi ñaan ko ñoom bàyyi ñas affaire yooyu ñaan gi est-ce que xam nga mi ngi fi hmm? ñaan yi mi ngi fi xam nga loolu parce que ñaan yi yéen ko wërul parce que ñàkk a wër gi nga ko ñàkk a wër mooy ma ni jaañ naar du ma ko du ma ko jam paaka damay wàcc dóor ko kurpañ jaajëf te foofu ngeen tool jërëjëf Jimbori. def leen attention def naa ci yow lool 19h57 minutes moom mooy doog a jot. ba pare waxi Californie bu ma sañoon. kenn du ko waxati si benn plateau parce que waxam amul njëriñ. waaw jërëjëf yaa ngi bu amee lu muy wax nga teg ko teg ma rek. waaw jërëjëf yaa ngi dégg. jërëjëf euh, euh, euh, Jimbori bég nañ ci yow bu baax a baax a baax 19h57 minutes moom mooy doo koy jot ñu ngi bég ci sénégalais yépp nga xam ne ñu ngi ñuy en direct ci Feeling Dakar TV la première chaîne people et politique du Sénégal la ba léegi ñuy wéy di Topou yi dem seeti bu baax a baax sunu papa ji Gaston nga xam ne dafa feebar hmm, yal na yàlla sunu borom fëgg ay boppam bu baax baax a suñu ay confrères yu bëri yu mel ni kaw kaw téef daal di bind que ni euh, kii di Gaston Mbengue nee na j'étais dans le coma certains ont annoncé ma mort euh, ñu bëri euh, jàppoon ni génnoon sax di annoncé li nga xam ne moom moo di génn àddunaam kooku di Gaston Mbengue naka nga gisee Gaston Mbengue sortie bi mu def di wax que ni dama nekkoon en coma mais maa ngi dund ba léegi deewu moom mais am na ñu bëri ñu génn di wax que ni dama génn àdduna waa Gaston moom suñu per Gaston dañ koy ñaanal bu baax yal na yàlla gën a fëgg boppam ci saa su nekk mu nekk nit ki ngoo xam ne yaakaar naa ne def na lu bare bari bari ci ci làmbu Sénégal bu yaakaar naa ne bu yeggee ba to ba ba toll fii marqué na ci ay empreinte bu baax a baax Sénégal moom dafa am ñoo xam ne rek mooy li may wax ay télé ci poos dañuy toog fenn di rey nit ñi feebar wala ñoo xam ne sax dañuy doxi seen la mm-hmm. ñu toog ba ci yàgg rek publier nit rey koo xam ne ne kuy dund la mm-hmm. wala ñu bindal la ñu la neex tam ci mën dara ku mu neex nag créer sa compte YouTube wala nga créer sa compte TikTok sa foo compte. dugal ci ku la neex eh, créer la ne deena wala dara. Mhm. mais Gaston daal dañ koy ñaanal yal yàlla fëgg boppam bu baax a baax a baax a baax. Mhm. loolu lañ koy ñaanal ba mu dellu dellusiwaat ci lépp li nga xam ne moom mooy ay activité am bu baax a baax loolu rek lañ koy ñaanal. Euh, comment bi mu nekkoon euh, ñu bëri jàpp ni sax Gaston feebar métti loolu métti boobu mu métti. Mhm. mais feebar nit ku feebar ba jóge Sénégal ba dem moo taal yi nga bañ ko xaj dëgg yàlla kilim bi daal moom xam naa ne fu mu toll nii yaa ngi ñuy rey yaa ngi ñuy rey. saa waay wax leen ci lii ba kilim bi mën naa koy taal du ngeen ci wax Euh, si koo xam ne ne tey jii Gaston dafa dafa am ñoo xam ne Sénégal noonu la ñu am habitude di toog yàq ay nit di bind ay nit naan dee nañoo deewuñoo di leen waxal ay wax yu ñaaw mm-hmm. mais Gaston sorti boobu mu def dans le comment képp ku feebar ba dem extérieur mm-hmm. Sénégal jéem-jéem ba sonn ba tëlee dem extérieur di faju ji nga war a xam ne ne sa feebar metti na te mm-hmm. dans le comment yaakaar naa ne képp ku ci nekk rek yaa ngi nekk ci diggante dund ak dee boo demee yàlla suñu borom génnee la ci rek kooku da nga war a santaat yàlla bu baax baax a baax a baax Gaston daal amuñu dara lu ñu wax lu dul ñaanal ko rek yàlla fëgg boppam macha allah ba mu mën a dellusiwaat ci ay activités. sorti Gaston Mbengue Jimbori euh, naka nga ko gisee. sorti mu ne moom deewul. waaw nit ñi di moo annoncé euh, mu gis que nit ñi ñi ngi doon annoncé que nii euh, Gaston Mbengue dafa génn àdduna. nga man lan laa si wax xam nga garçon dafa dee du wax maa ngi nii deewuma tamit du wax. <laughs> Mm-hmm. am na wala amut. am na kay. du dëgg. Mm-hmm. parce que tamit ma wax la dara. dañ ko ñaanal yàlla nag euh, mu wér si jàmm ak salaam. Mhm. est xam nga garçon bu dul politique bi bu dul nangam naangam waaw dafa am lu mu def si senegal mhm. yaa ngi dégg. Mhm. def na fi dara am na lu mu def lu bëri. émission bi fu mu toll la mais tey boo nee maa ngi nii deewuma yaa ngi dégg. waaw si sa njaboot dong ñoo lay tiim ba information di génn. kan moo ko génnee foofu maa ngi nii deewuma loolu kay da koy wax ñi lay tiim di génnee naan da ngaa waxal rek. Mhm. loolu laa parce que ñun ñi nga xam ne ñoo jege ngóone ñoo mën a joxe information ngóone léegi ñun bu ñuy joxe information ngóone. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. mais ngóone bu demee di tontu ñeneen. ñan la war a waxal bu ñun. waaw wala du noonu. dëgg la de mais mais mais est-ce que jotul ñu bàyyi tamit rey nit ñi te deewuñu. wala dëgg non xaaral ma wax la nit ñi wax ci rey nit ki taxul nit ki dee. Hmm. mais diw dafa dee du wax. du dëgg. <laughs> mais maa ngi nii deewu ma tamit du wax. am na wala amut mm. mais dama ni saa foo feebaree sa njabootu bopp ñoo lay tiit kan moo génne sa information da nga feebar ak fii nga toll ak toll nga fii kan la. mais ku mel ne Gaston bu feebaree nit ay ñi ñoo xam dañoo sele waaw non mais xam nga feebar nit yàgg naa feebar ñu ñu xam ne daa feebar rek. te demuñu ba dëkk bi de xam ne mu ngi ci diggante dund ak dee. Mm-hmm. ñu nekk ci diggante dund ak dee du jeex. mais dafa fekk njab nit ku jaboote jaboot gu am sutura ak jaboot gu amul sutura loolu la rek d' accord wax dëgg. d' accord ñu ngi koy seet yal nañu yàlla dénk njaboot bu am baax a baax a baax. personnel u Feeling Dakar yëpp ñu ngi koy seet di ko ñaanal sunu borom fëgg boppam mu jógaat moom ah, sunu papa Gaston Meng ah, di ko ñaanal sunu borom delloo ko waat wér géeram bu baax a baax. di nuyu doom makkaan nga xam ne actuellement moom moo assuré relève bi ah, moom tamit di def des choses importantes ci làmb di créer ay làmb ay ténor yu mag a mag makkaan ñu ngi lay nuyu seetal ñu paa bi bu baax a baax dugg nag carrément ci Ah, ci people yi people bi nag bëriwul tey ndax benn benn chapeau bi rek lañ ciy waxtaane xam naa ni sax boo defoon moom mooy ndar kepp bi la émission te people bi ñuy wax nag moom mooy ah, sunu maam sunu yaay ah, dafa def lu bëree bari ci musique sénégalaise ah une vraie diva Ah, voix bu bu bu énorme hmm, nga xam ni jot na bëggal ndaw ñi waaye jot a bëggal mag ñi ko ko nag moom mooy ajaratu xaar mbay ma jaaga mhm. ah, ñëpp gëj koo gis sur la scène musique sénégalaise ñëpp jàpp nii sax mag moo ko dikkal ah, moo tax mu gëj a génn wala gëj a dem ci plateau yi waaye bi ñu gisee benn vidéo bu viral lool ñu filmer ko ginnaaw bi ko balaa Ballago sekk defaree teraanga bu mag jox ko xar équipe bu Wally doon ko yóbbul xar mi waaye dañ ko jot a filmer muy wax ak Wally mais ni ñu ko filmer daal mu xaw a doy waar lool ñu wane que ni elle était très moom sunu maam jooju xawoon njagat yi euh, ni ko filmé neexul sax ay njabootam yi nekk bitim réew ba forna sax si wéyu béykat yi ñooñu woote nañ euh, fii ci réew mi di wax que ni loolu neexu neexul wax dëgg yàlla li ñuy def yaayam ji ci vidéo bu ñu ko vidéo est-ce que wor ma mm, wor ma la ñuy filmé koo xam ni euh, mag la walla dafa feebar Jimbori. mais xam nga tey ma wax benn affaire. Mhm. xam nga Wally moom. kaa bu ñëw dañ ko si dugalaale quoi. Mhm. mais ñi ñi nga xam ne dañ leen doon jox xar. Mhm. gars yi dañ leen doon jàpp di leen filmer. Mhm. bi mu ko yëgee dafa ne bu kenn filmé ti nit fii muy génnee xar ci gétt gi. loolu sutura sax. yaa ngi dégg ba pare Waly sekk pour mu génn ñëw ci gétt gi il faut trois heures si guddi léeg-léeg day guddee te bu gudd bu génnee këram ñi ñi koy dogaale rek bala moo agsi du jeex. mais Wally mënul garder ku koy filmer ak ku ko filmer wul parce que ñii filmer yépp xam nañ ni boo filmer Wally ami vie ñooñu tamit dañuy garder seen caméra topp ci mais bul fàtte ne euh, mair Xaar Mbay Wally yàgg na ko seeti te caméra te te caméraman yi ñooy topp Wally moom fu mu génn caméraman yi topp bu ñu gisul caméra sax nit ñi taal seen. mais bii sax Wally demul. daa yónnee non demul dafa yónnee. mais loolu laa lay expliquer nii mais maire bi euh, ki ko filmer dafa juum. ba pare gis nga nit ki ku toll ne Waly Seck ak li mu def ci réew mi waxuma de li paase moom nañ ko bàyyi parce que sénégalais yi chaque jour mu jëfa-jëf ba sonn ñu suul genn wàll gi waaye tabaski gii moom kenn mënu ko suul 30 millions la